di wax ne président Bougane mi dafay ñëwoon barki démb ñu waxtaan ba àgg ci liggéeyu forage bi forage Baxiyan bi dafa ni yëpp ma doon soññi bokki taalibe yi ngir ku ne barkeelu ci nga mbir mu am solo ndax ndox moom mm, ku nekk danga ko mos a soxla ji mbaa sa mbokk soxla ko mm-hmm. kon nag sa dara dem am na solo lool mm-hmm. ma doon soññi taalibe yi ne bu kenn xeeb dara euh, ngir laa biirante rek du ko war a digle du ma ko war a tere waaye nag mbokkum julit mën a saññaa laa biir mbokkum julitam rawatina mbokkum taalibe ba ñooñu ñu doon ci góorgóorlu bu baax a baax am na ñoo xam ne bi ñu yëgee sax moom mi mottali na teewul dañuy joxe. Hmm. keroog nag bi comme da koo bett mu ne moom danaa ko andi tey. Hmm. defee dama ko ne woon sax bo bu la neexee andi sag wa wax gi ma ko wax tax na daa bind seeg ba noppi indi kaas xaalis bi nii mm-hmm. kon daa gën a noppali ndax xaw ma ci turu ma koy def ma waxoon ko daal xaalis bi a kon day mel ne quatre millions cinq ne moo daa mel ne sax da koo yokk da koo yokk waaye manqué woon na mm-hmm. ba max foofu mm-hmm. comme nag yéenay ci seen loxo koy teg mu àgg fa mu àgg cant gi ci yéen la ne laa Sëñ Tuubaa lay liggéeyal gis ne lii luñ mën a liggéeyal te xam naa ne di yéene waale ne ci taalibe te defuñu mbir mi dafa nekkoon mbir moo xam ne mu jafe woon la yaakaar naa ku fa yàgg a andi euh, way dawlu ci jamono yi événement muy màggal muy Kazu Rajab muy màggal yeneen yu mag yi am ci Touba gis nga jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon jànkonteel ndax barab boobu dafa kawe mhm. li muy manqué ndox bari mhm. su màggal jubee wala événement yu mag yooyu moom day weer woowu wépp wala la ca lu ëpp lu am ndox àgg nañ nag ci màggal gii ga ko jiitu mhm. nit ñi di ay bitéel yii bitéeli ndox yi mhm. ak ay saakoy sasee ndox yi di ko waajale ñu faatu am ñu cay ñoo xam ne gis ga ñàng na lool ci seeni bët mhm. euh, loolu sax ñun ñemi wuñ ko wone waaye ñeneen ñoo ko wone duñ ko wonee nag mu metti lool ci xooli nit ñi yàlla def sëñ Abdou mi génn dem France tukki waa Touba Toulouse jokk ko ne ko ñun day gis nañ loo xam ne bëggoon nañ suñ ci amee ndigal ñu jéem faa def benn mini forage boo xam ne lu mel nii moom dootu amati di la seeral nag ci mbokkum taali bi mii di e, bogaan di la wax ne lii du yoonam mu njëkk woo xam ne jëf na ko ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ndog yi nga xam ne ñi ngi koy def ci koor gi te muy liggéey boo xam ne ñëpp xam nañ ñi ngi ci taxawe ñëpp xam nañ ñi ngi ci jàppe moom mii ko ci jàpp lool la e, xanaa nag dara cant bugaan mi wax dëgg yàlla ndax moom tamit bi mu ko yëgee jëf si ci jëf ju rafet maanaam def defaaleel taalibe bi amoon yéene def gi nag mën nañoo gëm ne Serigne Touba rek tax muy def. Eh, sëñ Abdou Samad ñu ngi lay sant eh, di sant waa Muqaddimatul Xidma eh, hmm. di sant waa Touba Xeb di sant waa Touba ci kanam. ak ñëpp ñu jàpp ci liggéey boobu ñuy def ca euh, bërëbu Baxiya mm-hmm. euh, di la santit bu baax mm-hmm. ci yaatal googu sëñ Muntaxa woote da nga jëfe ko mm-hmm. nde lii dootoon lu ñu programme ci biir waxtaan nga ñu yegge xibaar bi e, ca noona ni ñu koy waxee taalibe du xaar ñu woo ko ca dara ñu ci yégee rek war naa jël ñaqam def ca amub yéene wax la ko ca saasa mm-hmm. ngeen fexe yaatal ko mm-hmm. euh, la ñu ci jublu nag moo doon du lenn lu may yéene boobu ñu am mm-hmm. suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom matale wuñu ko woon wala euh, amoon nañu yéene yegsi wuñu ñu ànd ak ñoom mottal yéene boobu kon loolu dong la ñu ci jublu fasaale leen ci euh, fasaale kaddu yi jël sax ñu ngi koy tuub boo ñu joxutoonu ndigal it du ñu ko ca def waaye li ci ëpp solo mooy njëriñ li nga xam ne ndox mi am na ko ca bàqee googu mm-hmm. bu weeso woy dawlu yi mm-hmm. ñu dëkk foofu rek mm-hmm. jafe-jafe yi ñuy am maa la koy wax ne la bu ñu jénnee ci lii danañ xool nu ñu mën a jaayante ñu nit ba ndox ndox moomu ñu mën koo yaatal ba am ñeneen ñu ca mën a jot kon euh, ñu ngi sant bu baax ñu ngi jërëjëf jërëjëf